nañ na ay images ay vidéo yoo xam ni gis nañ kii di cortège wala kon jëf parce que néewul sax cortège la def moom président Ousmane Sonko mais ñi mu àndal ak kës néew gis nañ ñu leen di attaqué président Macky Sall euh, daa di yabal lu toll ci junniy soldat ak ay pick-up ngir ñu dem di surveiller kii di président Ousmane Sonko ak jamono ji fi ñu toll ak réew mi fi ñu toll ci démocratie yow en tant que militant Pastef en tant que jegeñaal Ousmane Sonko instant bi loolu bi nga ko gisee premièrement nan nga ko jàngate waaw jërëjëf di santaat yàlla rek di euh, xam ne comme ngi Sénégal yëpp gis gisandoo ko ñun ñëpp ñoo gis mooy koo xam ne nii depuis mu tàmbali ci loxo ne bëgg na defar Sénégal bëgg na liggéeyal Sénégal mhm. mu ngi ci ay jafe-jafe euh, ci jafe-jafe intimidation rajee ko en même temps ñu jabuliise ko mhm. attaqué ko lu nekk yàgg nañ ko ko def kon nag bu ñu gisee tey mu jël benn euh, taxawaay boo xam ne nii. fa mu nekkoon démb fa la nekk ba tey depuis quatre ans cinq ans mu ngi taxaw di préparer pour benn tournée bu ñu wax nemmeeku tour te loolu yàgg na ko wax ne dina ko def. ndax moom li tax mu jóg ne dafay sol pour gis sénégalais yi pour xam soxlay sénégalais yi loolu euh, mooy mooy bëgg-bëggam. Mm-hmm. depuis ma ko commencé nag première jour bi mu ko déclaré. Mhm. def benn levée de fond am ci deux cent cinquante millions. Mhm. ci lañ gisoon ku ñuy wax ministre de l'intérieur Alim euh, euh, kii Antoine Félix Diop. Mhm. Diop suba deux heures de matin la yeewu. dinañ commencé naan. bon yéen seen nemmeeku tur bi xaalis bi levée de fonds bi ngeen def extra extra dinañ dissoudre parti bi. nga xam ne kon ñoom toujours rek ci loo xam ne nii. Euh, li ñuy wax. démocratie duñu ko respecté léegi Ousmane Sonko bi mu jógee na day def euh, nemmeeku tour premier jour bi mu ko déclaré dafa wax Sénégalais lu leer man damay def nemmeeku tour te Sénégalais yi moo ko ñoo ko demande muy militants yi ak sympathisants yi nga xam ne nii ñu ngi ci biir réew mi yàgg bëgg gis Ousmane Sonko. Mhm. bi mu ko déclaré rek man xam naa ne automatiquement dinañ teg ay. Euh, stratégie yoo xam ne nii pour gàllankoor la. mais nag xool nañ ko ci côté bu nekk amuñu ci solution mais nag li ngeen euh, saay saay. du bàyyi. du tekki ngembam da koy yolamal. premier jour bi mu dekk ba mu demee euh, Mbour man boobu jour boobu maa ngi woon Darou Mouti bi ma demee daaru Mouti bi ay 17h laa jógee Darou Mouti ñëw mbuur bi ma tollee si Thiès rek laa gis. Mhm. ma gis euh, convoi bu ba bu ay dizaine de oto. ay mhm. gendarme mu nekk boobu am na yeneen gendarme yoo xam ne ñu ngi Joal ci même en même temps bi ma dikkee yegg si rek gis attaque bi ñu ko attaqué mu mu naqari ma. ma ne lii qu'est-ce qu'il lan la ñu ne président Ousmane Sonko kat moom la gendarmerie suwal attaqué ci euh, boo xam ne préfet moo leen ko digal. Mm-hmm. mu doon lu ñaawlu Sénégal yëpp ñaawlu loo xam ne nii kenn du ko accepté mu doon loo xam ne nii Macky sàll bu bàyyi woon xelam ne moom Ousmane sonk lu mu gën a acharné wu ci kawam rek day gën a am problème léegi ñoom bi ñu attaqué Ousmane sonk foofu bu doon nit ñu am euh, tuuti xel. Mm-hmm. en tant que gendarmerie nationale. Mm-hmm. préfet jëlal la jël décision boo xam ne yow leer na la kii illégal la yow waruloo ko appliquer yow gendarmerie nationale en tant que gendarmerie commandant te ñoom ñu koy def loolu moom ñoom ñu koy jox euh, ordre yi ñu koy jox la ñu bëgg wax ñi muñ ko ko wax ak sous-préfet yeeg ay gouverneur ñuy joxe ay ordre mhm. pour di jox gendarmerie nationale di ko jox ordre pour Ousmane Sonko li ñu ko bëgg wax ñi muñ ko ko wax kon ñoom gendarmerie nationale ñoo war a jël seen responsabilité ñoom jàpp sonko lañu bëgg te ñi mu ñu wax jàppale nañ sonk léegi dañ leen di waya di loo mhm. def leen nii ñu topp ñuy daw guddi ba ca ñuy daw dikk di mel ni kuy jàpp xale di jàppante dóor bàyyi na loolu amul njariñ liñ bëgg suñ ko ñemewul nañ arrêté Ousmane Sonko intimidé ko téewul mu def mu def euh, tournée bi tournée bi daf koy def ndax lu yoon moo ko may loi la ni nga amee droit dem marché ma am droit dem marché ma dem droit dem ci jàkka ji dem noonu la Ousmane Sonko am droit dem génn ni ñëpp kon nag ñoom bu ñu leen waxee bu ñu leen joxee maanaam ordre yoo xam ne nii euh, day nekk euh, day nekk intimidation yoo xam ne teguñu ko ci teguñu ko ci yoon. Mhm. waruñ ko nangu ñoom gendarmerie en tant que gendarmerie nationale. mais ñoom ci liñ sukkandiku ba wax loolu parce que dañ ni dañuy bañ. trouble à l'ordre public wala attroupement est que jàppoon ni Sonko tamit ak mbooloo mi koy dajeel mi mi koy topp yëpp jàppoon ni mën na ci indi yu mel noonu. non bi Sonko jógee gisuloo fenn fuñ ne Sonko fii indi na fi attroupement indi na fi ci benn instant du ñoom kay li ñu bëgg mooy sonk wuñ mu génn ndax xam nga li ñuy bañ. Mhm. maanaam popularité bi sonk am. Mhm. ak ñoom ni ñu impopulaire loolu la ñuy bañ tax Macky Sall benn tournée tournée boobu muy tournée nag xam na ne ñaari nit duñ ko topp bu Sonko génnee am popula popularité loolu lay bañ a génn te loolu image bu muy bañ a woon euh, euh, euh, international. Mhm. ñoom xam nañ ko ba pare léegi nag. ñoom gendarme yooyu ñu war a jël seen responsabilité ndax ay républicain lañu war a nekk buñ nangu ko leen di instrumentaliser di leen dugal ci loo xam ne du seen du seen domaine ñoom dañu war a respecter république bi Macky Sall mu gouverner loo xam ne yoon mayu ko ko ñoom waruñ ko jël ndax Ousmane Sonko dafa def droit xam na ay droit am lépp loo xam ne nii yoon da koy tere Ousmane du ko def Ousmane buñ bañ na ko ba bu ñu fu ñu yegg si bu dëkk bi Ousmane day wax gaare leen ci bàyyi bàyyi leen télé bu kenn taxaw ci télé bi ñi doon ànd ak moom sax minitan yi nga xam ne dañu doon jóge fu ne dem di ànd ak moom dafa ne bu kenn ñëw soxluwuma kenn ñëw man mii Ibrahima Gueye nay leer jour bi ma jógee Daaru Muuti mu am ma yegg si loolu moo ma tax a ñëw ndax bu ñu tollee Thiès laa seen convoi bi dugg si man ne ñii ci Ousmane Sonko la jëm ma topp leen ndax man maa ngi woon Daaru Siiru bi mu ci guddi bi mu waxee daf na sëñ Ibrahima day maanaam yéen da xam naa ne da ngeen xëy waaye wax bëggoon naa ngeen toog bu kee jëroon ngeen di ñëw yéen ma ko wax moom président Sonko ma ne ko ah man de li ma ñëw li ma indi mooy li ma gis ci yoon rek moo ma indi mu doon koo xam ne nii dalub réew mi ak jàmm réew mi toujours ci lay nekk nitu jàmm la mais nag li mu dul nangu mooy ko ko intimider ko ko asserné wu ci kawam teg ko injustice boo xam ne ni du ko accepté depuis mu dugg ci politique ba léegi d'accord mais tamit est seen candidat bi def ko exprès parce que dafa def déclaration boo xam yëpp ñoo ko seetaan mu wax ni ak Ousmane Sonko am ci réew mi mu wóor ni moom bu Sénégalais xamee ni quand dana dem bërëb sàngam bërëb sàngam mhm. est-ce que tamit déclaration boobu mu def mënul woon a ñàkk ci wax ni day def nemmeeku tour wala yow gisoo ni defu ko exprès pour. nemmeeku tour wala candidat bi. nemmeeku tour parce que def na déclaration bi ñu bi bi mu defee déclaration maanaam pour seen maire maanaam seen élus locaux yi. Mhm. defaa na beneen déclaration wax Sénégal yi que ni dana am entamé nemmeeku touram. nemmeeku tour bi kañ la ko depuis quatre ans saa bu ko jàppee corona benn bi coronavirus moo ko arrêté mhm. bi événement mars bi moo ko arrêté mhm. saa bu ñu ko jàppee beneen bi. Euh, li ñëpp gis. Mhm. muy ñu jowaat ci élection loolu moo tax nemmeeku tur bi nekkul ne tey ko déclaré yàgg na ko wax ne dina ko def. Mhm. moom day fa am agenda agenda bi mu yor personne mënu ko arrêté muy lan dafa am soxla réew mi 2024 jafe-jafe réew mi moo ko dugal ci politique mu am agenda am di ko déroulé agenda bu mu dëkk. nekkul ne dafa laaj ne Macky Sall soo la neexee soo la naxaree moom dafa am agenda am di teg politique am nekk leader leader politique. di nekk ne nekk président parti Pastef am droit dem ci ay militants ci ni ko ko yoon maye. kon nag amu ñoom droit ne ko doo ko def. xam nga ñoom li ñu bëggoon jour bi ñu lañ bëggoon premier jour bi dañ ko bëggoon ne ko di ko di ko exiger pour muy def demande autorisation di ñaan autorisation. ñaan autorisation. département bu mu dem dem ci préfet bi ne ko may autorisation. pour dugg ci boobu su ko defee ñu loolu foofu gàmm bu lañ ko bëggoon a dugal su ko defee bu demee ci bu demee ci ci ci département bi kii ne ko noonu mënuñ laa may ndax lii lii lii ki dem ci kii kii may ko nga xam ne kon mënoon nañ ko may dix rek dix département rek ñi ci des ne ko ñu mënuñ laa may ndax nag léegi nag moom ci gàmm boobu lañ ko bëggoon dugal ci ñaan ay autorisation hmm. te nit ki amul droit dem ay soxlaam nga ne ko da ngay ñaan autorisation bu ñu duggoon ci bu Ousmane duggoon premier jour ci ñaan autorisation ndax euh, gendarme daf ko ne yow amul ban autorisation lay demandé ak kan la koy demandé. est-ce que jàppul nii euh, attroupement bi bi mu ko waxoon ni moom la fi indi moo tax xëy na mu bëgg mu ñaan autorisation pour gars yi mën ko encadrer. mais ñoom xam nañ ñoom seen stratégie mooy lépp loo xam ne day empêcher sonk mhm. mais ñoom loolu dafa leen di day day tax nit ñi gën a bëgg Ousmane sonk gis nga assainissement bi ñu def ci kawam. Mhm. injustice bi ñu def ci kawam moo tax sénégalais yu bari gën a mere Macky Sall ndax moomu dëkk bi. dëkk bi ñun ñoo ko ko dénk xeex ba jot ñu dem élection jox ko moo fal ko mu nekk président de la République kon nag amul droit taxaw ne keneen du fi opposé loolu moo ko indi problème dina am opposant mu neex ko ak mu naqari ko. mais tamit mag yi comme que ni mu ni mu jëlee junni parce que junni soldat tamit du jox leen ay matériel ay pick-up est-ce que instant bi wàññiwul Aliou Ngor si comme na mu commencé woon. jàpp ni Aliou Ram na fi mu <laughs> moom comprendre ba léegi xam nga li koy li problème Macky comprendrewul ba léegi bu fekkee ne dafa yaakaar ne recrutement ay junniy police mille gendarmes deux mille gendarmes moo tax mu man a am li mu bëgg. day nax boppam. Sénégal fii réewum démocratie la dana ko respecté mu bëgg ko ak mu bañ ko ndax ñàkk respect ni mu nekk président de la République démocratie moo ko fa teg ci pare bi démocratie boobu da koy respecté ah ou bien da koy respecté booy boobu mu indoon quarante million dix millions vingt millions. gendarmerie policier munul tax ba Ousmane sonk dellu si ginnaaw yoo tax dafa xam ne anal ko wati lillaay jamian mhm. yàlla ne na kàttan man yàlla rek ko am moom nag pour moom dafa am ne am na doole boo xam ne nii dese na tuuti doole mais bu comprendre li passé du mois de mars te loolu lu mu ngi toog di ko xaar encore. Hmm? waaw ah ah mars fukki bakkan ak ñeent dañ fee rotoon de. mars mars méttiwul. ah mars. déet xam nga mars. loolu loolu loolu moom. loolu loolu moom sëñ bi lu triple maanaam mhm. c'est-à-dire kon euh, quatorze fois trois parce que tamit fukki ba bakkan ak ñeent du ay caaxaan. Ah, loolu moo xewoon ci xam na ko de. xam na ko lu ko triple mu ngi fi ndax ne woon na li fi amoon du fi dara dossier ba mu yoroon ba tey. Mhm. complot ba mu tegoon ba léegi dossier baa ndaw saa ngi si ñoom ba léegi ñi moo ñëw ubbi dossier bi bu tayee ñu ne danañ ko woo bu subaa ñu ne duñ ko woo nga xam ne kon xam nañ ne li fi nekkoon lu ko raw mu ngi fi. moom ñi ñi ñi ne ci télévision yi di ko di wax ñoom ñoo xamul mais Macky Sall moom xam na ba waxee ne li fi amoon du fi amoon ba léegi. Mhm. galaas la jënd usine galaas yëpp jënd na ko. gis nga tool. Mhm. dafa amul njariñ nit da war a jub jub moo gën ay pexe Ousmane Sonko sénégalais la opposant la am na droit taxaw moom li mu waroon def nekk ci problème sénégalais yi dund bu seer bi loyer bu seer bi. inondation bi ndaw ñaa ngi jàng ba pare yor seen diplôme di taxawaalu ci Macky Sall ci loolu la war na focus xalaat ne moom li tax mi koy am may li lan moo ko mun a may moom moom mu nekk ci soxlay sénégalais yi mais moom benn problème la am mooy Ousmane Sonko bañ na ko buy jël ministre sax du xool ki muy jël xamul day tatu ne rek <laughs> muy dàq Matar Ba di teg ay boy bi nga xam ni xamul dara loolu mooy waaw Yankhoba Diattara nan ngay jëlee dàq Matar Ba noo xam ne xamatul xamatul lu muy def ndax Sonko est-ce que jàppul ni Yankhoba a xam nga xam nga nit Matar Ba lañ doon xaare lépp defu ko xam nga moom li mu bëggul mooy ku politique mooy kuy liggéey te politique ko bëggu ko bëggul ko am résultat xam nga kuñ bëgg hmm. kii politique di ko nax naan ko yow la danga am am troisième mandat kooku la bëgg mais bu problème bi mu am mooy sonk moo tax talul sénégalais yi. mais tamit soo moom président Macky Sall démb rek euh, ci ay mini ay ay jege ñaalam ñoom ñoo ko laaj loolu doon ko wax pour mu déposer kan troisième candidature am. Mm-hmm. mu ñu leen instant bii nii euh, suñu priorité nekkul loolu dafa dafa leen a dafa sax yuuxu ci seen kaw. Mm-hmm. wax leen ni ay déposer troisième candidature bu leen moo ko wax. Mm-hmm. Euh, kon est-ce kooku jàpp nga ni fi mu ne nii mi ngi xalaat déposer troisième candidature.